fan yii yëpp actualité bi ni muy doxee euh, euh, waxtaante bi nag père daw yaa ciy fës yaa ci pee sa diggante ak Gaston. damay sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi. di gërëm képp kuy sénégalais. képp kuy sénégalais je suis fier d'être sénégalais et puis je suis fier des sénégalais. ay nit ñu baax ay nit ñu ma bëgg. di ma ko won saa su ne ba pare ma wiññeeku di leen jéggul ci weeru koor lanu ne muy weer woo xam ne weeru lislaam la di weer woo xam ne weeru jéggalante la may jéggu may jéggulu képp kuy doomu senegaal di jéggulu it julliti àddina bi yëpp di ñaanal sama njaboot sama doom ak samay soxna samay doom ak sama soxna faatu mbaay di ko gërëm di gërëm samay doom ci yar bi ma leen yar ci li ma leen di won bis bu jot di gërëm ñi ma bokkal ndey ak baay di ci jiital suma mag Ousseynou Mbaye Alaaji Ousseynou Mbaye mm-hmm. di gërëm samay mbokk yépp di gërëm njabootu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mm-hmm. di gërëm njabootu Cheikh Sidil Maxtaar Kunta yu njabootu Cheikh Bunaama Kunta njabootu Cheikh bu Mouhamed Kunta di ñaanal xalifa bii fi ne Cheikh al Bekkaay moom Cheikh al Bekkaay yàlla na fi yàgg yàlla na wér di gërëm nag njabootu këru diine yëpp ndax taxawaay bi ma am ci réew mi ak ni nu ma jàppe fu nu toll di ma ñaanal di ma wax yu baax ba pare nag di gërëm waa Grand Dakar fa ma dëkk ñuy sama lépp falaa juddoo falaa yaroo falan ma yare mooy booy Dakar di booy Grand Dakar yaroo fa yàlla dugal ma ci métier taskatu xibaar jànguma ko ci benn école yàlla jël ma yóbbu ma ci rajo ma ànd ci ak ay kàngam yoo xamante ni ñu may won yoon may dem di dikk am ma dugg ci làmb am lu ma def ci làmb jubook ñëpp ànd ak ñëpp ba ku bëgguloon làmb bëgg làmb ma am lu ma ci liggéey fii ci kër gii di 2STV mhm. ma ànd ak Alaaji Jaay wax naa leen nekkul sama patron sama mag la sama xarit la ñu ànd liggéey liggéey bu rafet ba làmb tollu niveau boo xamante ni ni ku ci amul woon liggéey amoo ci oto amoo ci kër am nga ko ci te bu bu njëkk mbër promoteur daana ko tëgg mu liggéey ba dee mais du ci am dara dem nañu ba mbër yi doon ay tiitarukaay ci réew mi. gàcce ngalaama mbay. lu waay di liggéey dem jëli ay mbër mhm. lu waay di wane wane mbër mbër yu bari am ci ndam am ci succès ma def ci li ma ci war a def ngeen gis fan yëpp may dem di tukki di dem États-Unis di dem di ñëw pour yëkkati suñu culture réew mhm. ñu am leneen luñ ci rax muy MMA ku mel ni moo get di ma woo foofa ma fay dem di ko ci liggéeyal ñu dem fa mu am fa ndam ñu boole mm sabar bàkku fecc succès bu mag am ci man loolu mooy sama métier duma wax lu ñaaw déedéet du def nit lu ñaaw fonk naa Sénégalais yi fonk naa ko mu mën a doon loolu laa lay wax bijou à loolu amuma leneen lu ma wax lépp lu ma waay wax yàllaa ngi fi. Hmm, père yow dafa yomb nag. à waa bu yeboo mu yomb bu yeboo. nga ñëw nii rek bu ko. père leneen li nga bu yeboo. bu yeboo mu yomb à part lii. match bi tas na. père match bi tas day waa xaaral ma expliqué la père. parce que da nga fi nekk waa père ma expliqué la munoo fexe kaay ma wax la. munoo na match bi tas. Ah, ah. parce que fii laay yem. c'est c'est bien les sénégalais. Eh, eh, et et feneen dinaa wax yéen da ngeen dinaa wax leneen xam nga leneen li may wax lan la. Hmm. yàlla dafa dogal 2STV jur Bantamba TV. Hmm. may kilifa ga. 2STV jël làmb jox ma ni ma yóbbu ci sa télé. Mhm. boo amee promoteur bu ñëw nga ñëw ñu liggéey boo liggéeyee ak moom signé ak moom ba pare nga ñëw ñun ñu liggéey ak yow ci ligne boobu laa nekk promoteur bu mu mën a doon bu bëgg a liggéey ak 2STV da ngay ñëw Total Média Sport Africa bi boot 2S bi boot Bantamba. Mhm. nga liggéey man maay ñëw maay indi làmb bi fii ci 2STV. loolu nag mu ciy gërëm alaaj Ndiaye. Mhm. Mariam Ndiaye Abdou Ndiaye ak ñiy liggéey ci kër gi di ay xale am jom am fulla mhm. xoolal marché bi tas na tasul tasul tasul. bisu bisu mais maintenant bisu. bu dee da question boo ko mais am TV li wax waxaara ba rax wax na dëgg. non Bantamba TV dañ ko interdire lamb euh, dañ ko interdire lamb Gaston Production. waaw tey jii euh, Gaston Production tëgg ay date yoo xamante ne. Mhm. forcément il faut que ñu xaar ci Bantamba TV pour ñu mën a am élément yu ñu bëgg. bu fekkee ne dañ ko interdire ci làmb naka la mhm. Bantamba TV di def. bijou match bi tas na. tas na li ci kanam raw li bët. yàlla na yàlla may kon yow dat yi ñëw Bantamba TV du ñu mën a seetaan ñun euh, euh, ñi ki nga xamante ne moom mooy Reug Reug ak kii Sa waaye dama ne. Mm. mais grand bécard match bi tas na leneen lu waay di wax. wax ko kuy def. defal waaye di nga dem wantoo dem. man li may def nit ñi dinañ ko gis yàlla dina ko gis. waaye toog fii di wax lu ñaaw. Sénégal mais le but c'est pas ça bu gàmmu jotee ma toog Cheikh Al Bekkay toog ma yor micro bi ñu ne waa Jalle moo fi waxoon lu ñaaw du ma ko def. déedéet. Mmh. nga Sénégalais yëpp xam loolu. mais nag maa ngi clean maa ngi nice. je suis bien yaa tooñ moo tax ngay clean. waaw bu yeboo yooyu yi ngay dugal yëpp xam naa la nand naa la yow nand naa la bis yu tamit. waa léegi en 97. laa dugg ci rédaction Walfadjri Ablaye Lam Reine Marie Souleymane Niang Alioune Ndiaye. Reine Marie Faye ah Reine Marie Faye Samba Diop Antoine. Hmm. mais ay ndaanaan ñoo ma ëmb. expérience dugg ci làmb ah Père Gaston en a dugg ci làmb waaw waay sama yoon nekk mais maintenant man <laughs> mais grand bécaye sama yoon nekk mais grand bécaye man li ma bëgg a laajte mooy waaw parce que man ay affaire confrontation ay man sama yoon nekk ci mhm. man ma question elle est simple parce que tey jii ñëpp xam nañ li nga def ci làmb. Mm-hmm. Sénégal yëpp xam nañ man jot naa ci am tuuti information li xew te man loolu ça ne me concerne pas sama question mooy aujourd'hui combat yu mel noonu Gaston ngi di tëgg est-ce que yow mën na la ci gis ngay commenter wala mën nañ ci gis Bantamba dugal ci ay éléments. raxu loolu du ay defante quoi. raxu defante wu li ci kanam. raw li bët. d'accord jeex na de. nanu xool. d'accord na Sénégalais yi xool. d'accord man daal d'accord jéeri moo ne maa leen sama ma faali ko mën naa ma tëx bii. <laughs> très bien du wax lu ñaaw. d'accord mais PPK kañ nga commencé di tëx nii. donc y a un problème. waaw ah, waaw est-ce que duñu def douze jours la réponse elle est claire. non donc y a un ah, problème donc ça on peut pas régler ça. claire la moo claire. coono ko way rawali kat mooy mën naa ma tëx ba balaa dégg ci bala ñaar tàkk en ah, déggoo ko. bu ko ci wax ma ne douze coups boo bëggee ñu tiré la nga dégg. père yow lan la kañ nga commencé di ruux nii. waxen la danga toog seexal ba gaay toog lu dégg ko muy wax waay waay waay waay Sénégal Sénégal daal bisu. yal na yàlla guddal seen fan. yal na yàlla may leen wér. yal na yàlla may leen jàmm. yal na réew mi am jàmm. et puis ci weeru koor la ñu ne. et puis et eh, Marou ci weeru koor la ñu ne. dëgg la ku ma tooñoon baal même internet yi ñu ngi. déglul déglul ñooñu ñëpp. waaye yow bisu yow man ma toj ñun réew. waaw waaw waaye Père Gaston yow yaa yaa su ñu tuddee su ñu tuddee Père Gaston la doon kii xanaa du yow. <laughs> alors. <laughs> kon yoo xam mais bii bii bi daa mel ni yow yow itam da ngaa far. xam nga ba ngoon. mais yow itam daa mel na nga far. <laughs> kii moo jur Modou eh, di la gërëm. <laughs> ndax li gën a sedd sama bool kii ma fi fekk. ceddo bu tëb waxtaan bi ceddo bu naxee dama ko fee fekk te ceddo ku baax la. kaara ngi ak ci sa jaar jaaru Serigne Touba. dëgg la looloo ko ñor bis bu jot ci loolu lay ne. wallaahi xale bii culture moo ko ñor. Mm-hmm. quatre vingt ay quatre vingt millions lay perte pour indi fi i artistes fii ci Sénégal. dëgg la di leen wax yooyu. ah, ah. wax yu yooyu. xam nga lan la. kii laa def bi beaucoup d'argent ay artistes yu fi ñëw. père xam nga lan la. père nag li muy wax moom bàyyi lu ñu wax ko rek. yow moom fi mu nekk nii bu wax tey wax. waxal li nga war a wax. yow doo ma yow laa faral nag mais kii moom <laughs> yow may ñu rek gis nga mi imaam bàyyi commencé sànni nga am. mbaaye mba mu épi bi lan la. lan la mbaaye gàllé bi taxaw épi bi wax boobu. mbaaye gàllé buggul. dafa bëgg naa dina wax. rasul eh, doo ma déglu yow non bi buggul lu ñu wax ma wax la. barke ci yàlla Mohamed du ma wax lu ñaaw. te du ma tontu ci dara. déedéet non non. je ne suis pas comme toujours yi ngay def yëpp xam naa ko. confrontation et puis émission bi. bu ko def confrontation. non non du confrontation du confrontation. du confrontation ah da ngeen di seetaan kii muy def seen émission bi confrontation. non non non confrontation sax non non non mi ngi leen di jël di leen ëllëg. ah yooyu yow bisu yow bisu yow tamit. yàlla yàlla defal lu jàmm. dëgg la bu ma déclaré dëgg la ëpp daal wax ñu ngi lay ñu ngi lay tàmbalee mere fi mu ne nii. ñu ngi lay tàmbalee affaire du dam sama beneen affaire dama créé bantamba mu def buum. léegi dama nekk ci yow. waaye créé nga créé bantamba ñu dàqal production te dafa am ay dates yoo xam ne dañ koy eh, xaar. Eh, Balla Gaye eh, Gris Bordeaux faaw ñu xam te bantamba la boobu dinaa la tontu boobu dinaa la tontu. waaw a dinaa la ko may tontu la. bantamba 2STV bi toog nañu 2 ans duñu dugg ci yi bu ñu ñu jël pay. boobu rek laay tontu boobu dinaa la bu ñu sondagé ñooy jël pay. ku mu ne tëggal la ñu yor. dinañ ko dox léegi damaa nekk ci beneen challenge. muy lay di tigre <laughs> lay di tigre laa bëgg mu romb. ma defoon bantamba ma yóbbu fa léegi. mais na am eh, sans lamb est-ce que moo gën a taxaw léegi tigre non bantamba la ñuy xeexal fi mu di si biir kër gi. on a les moyens. émission L'Oeil du Tigre. ni mu mel. benn émission waxuma la lamb sportif mais lu ni. mais avant ñu ngi toj. sa yow. mais grand Bécaye est-ce que mën nga def L'Oeil du Tigre. ku ko seetaan a ban ban. yooyu nag ban. mais fan lay toll. ban tamba du moromu lay du ban tamba ngay tëkkale alhamdulilah am na loolu dama ci sant yàlla tey Modou Mbaye waaw waaw Mbaye nag dala fee jële ma faali ko mën naa ma tëx ba dala fee jële waaw ma faali naa ma tëx ba balaa dégg fukk balaa ñaar taax moo Mbaye te day toj réew mi sa gàmmu day romb Ndiassane laa la wax ban tamba rajaxe réew mi <laughs> ah, na ma koy waxe ñu rajaxe réew rajaxe leen benn personne di yi di ko rajax yow yow yow yow bisou. oh yaya bisou bisou comme c'est oh, sûr que oh, mënuñu am mënuñu am beneen bu dul bii. Eh? naa ko du romb foofu. non non ligne bu mu tracé boppam. Eh, quand même non xam naa ko tamit bisou. <laughs> boy boy Grand Dakar. doo boy Grand eh, Dakar pas Grand Dakar pas Grand. <laughs> dootoo pas Grand Dakar fenn Grand Dakar. dama daan doo ñëw paa bi. yaa ngi dégg ñu far. sept ans huit waa ASLM ñaari tali dégg nga bu yow question yi ngay laaj dana bis gars yi génn soppaay lu nga la jógee dafa paas na toog am sept ans huit ans déglu ma toog am sept ans huit ans Ablaye Mboub toog Ndiaga Mbaye toog bu Ngoné Ndiaye toog Bada Mbaye Mass père da ngaa tooñ nangu ay ndaanaan di wax may dégg doon xale ñoo ëpp xam-xam ñi tubaab yi di tiitaroo fii ñooñu xajunu ci ñoom mm-hmm. ma toog nii yor sept nii ci seeni um laa jànge dox ñooñu ñoo ah? tooñ promoteur yow da nga tooñ. ñooñu mosu ñoo tooñ promoteur yow da nga tooñ. baal waaw waaw koo nga ni nga ni ci weeru koor la ñu nekk koo tooñoon. baal ma. baal ma. bu ma tooñoon waxal Père Gaston kon baal ma. man daal. xoolal waxal. waay waay waay kii bul tudd turu Gaston. Pape àtte leen ma yow ngay modérateur. waaw invité ma ma toog fii nga déedéet yow mais bàyyi jàmbur bi loo ci xamul loo ci xamul père. <laughs> père loo ci xamul. doon jéego <laughs> ah. jël na sa défense fii ba ñëpp ñëpp d' accord. doon fii la taxaw. doon jéego yow tamit waaw booy taawun la nee na ku laal père Bécaye nga duñ ci jaaraat mais doon jël na jël na défense. doon nga war a doon. maa ngi nii. ku faral ah, di ah bii wéet nga ci nag. bu kenn a bu <laughs> a. Ah, ku faral père Bécaye sa loxo si kaw. ñu ngi nii.